Euh, muy secret yi ci alxuraan ñu koy wax euh, ilmu asraar euh, muy xam-xam boo xam ni nit ki ban na cee jariñu àdduna jariñu jariñu ci àllaaxira ñu gis ni ñi koy topp bari na lool ñu koy ittawoo ndax ñaan ba tey mooy ngànnaayu jullit adduwaawul silaawul mu'minin moo xam ne adduwaawul muqul xibaadaati ñaan mooy yokkub jaamu yàlla moo xam ne adduwaawul wal xibaadaatu ñaan mooy dëgg-dëgg jaamu yàlla mhm. kon nit ki lu mu bëgg rek ak lu mu mën a doon ci àdduna ak ci àllaaxira dafa war a di ko ñaan di ko ñaan yàlla ah, léegi nag gaa yi soxla tey lu jëm ci wàllu ku bëgg a falu hmm. waaw am na ñoo xam ne xëcc nañu seen seen bloc note ba toog di di xaar lu yàgg nag <laughs> falu oustaz jamono xaw ma Euh, jamono ji moom mooy kii bi de. ñaanu Fallou am na te dinaa leen ci jox ay tettal yu weer yu amul benn. te joxel dix joxel neuf bàyyi dix dix dixième bi <laughs> comme ça comme saa ñoom ñu ñëw. <laughs> tey daal. day yomb torop jox leen lépp nii. képp koo xam ne da ngaa bëgg a fallu ci entreprise. bëgg ñu fal la dara. wala ngay mm-hmm. xëccoo dara bëgg cee bëgg bëgg caa kawe. Mm-hmm. da ngay dem ci alxuraan nga bind warafaxnaahu maa kaana aliyan wa rafahnaahu maakaan aliyan nga bind ko 1111. 1111 waaw nga dem ci alam nasara nga bind wa rafahnaa laka zikrak wa rafahnaa laka zikrak moom it nga bind ko 1111 su ko defee ñaar yooyu nga boole leen. Mhm. nga boole ko ndoxu géej ak ndoxu dex ak ndoxu teen ak ndoxu robinet ndox yi baaxoo ball rek nga def ko muy saafara si nga sangoo ko ci kaw itaas. waaw ci kaw itaas lu mu gën a kawe rek boo ko sangoo foofu boo amoon itaas boo nekkee ci àll boo gisee montagne nga sangoo ko wala boo mënee yëg ci karaw ci kaw garab nga sangoo ko moom lu baax la ci yëkkati nit ki waaw lu baax la ci maanaam nit ku bëgg a dara mm-hmm. ba tey beneen kayfayaat ci ku bëgg a falu président wala député wala <laughs> ministre yaa ngi indi problème nag sa téléphone bi moo nar a nekk di rang rang rang rang range ba ba ba février du arrêté. wallaay léeg-léeg nga dégg kilifa gu naan kilifa gu naan kilifa gu naan moo fal diw. Uh-huh. falu ko ci leen dudul alxuraan. macha allah kon képp ku bëgg a falu président wala député wala ministre wala lu mu mën a doon rek da ngay dem ci alxuraan aaya ba ci ëpp doole xam ne kanfoore yëpp maase na nangu ni moo ëpp doole ci alxuraan. Uh-huh. muy ayatul kursi yu. ñu ne ma nag bari na nga bind ko ba mu ba lim ba lim boobu mat. nga teg ko nële su ko defee nga bindaat beneen lim bi 231 muy ñaari 231 soo noppee nga fexee am karawu góor ak karawu jigéen loo ci am rek baax na. n'importe quel karaw na nekk jigéen nga lakk ko ba mu xam nga def ko ci saafara si maa ngi giñ ci yàlla boo ko dee sangoo di diirub juróom-ñaari fan nga xaar lépp lu nuy fale nga xam ne yow war nan la caa mën a fal. Mm. incha allah waaw nga xam ne war na la caa mën a fal ndax da ngay sabablu ba xam ne war nga koo mën a doon mhm. yàlla dafa bëgg koy sabablu nga def bu fekkee nag euh, karaw gi maanaam fan lay falee xañ na réew tubaab la mhm. il nga am karaw tubaab kon def ko ci waaw beneen bi ci topp ci wàllu kayfayaat yi ku bëgg a falu jiitu ci mbir da bind sortu yaasin ba mu jeex waaye boo koy bind salaamun xawalan min rabbi rahimin da nga koy jël doo ko bind bu agsee ci aaya boobu da koy jël salaamun xawlan min rabbi rahimin ba defee nga wër xar mu yeex tàll mu amoon benn rax nga rendi ko nga saam ko juróom-ñaari saam nga sarax ko léegi resu xar ma nga bind ci salaamun xawlan min rabbi rahimin surtout yaasin bi nga bindoon moom ngay def saafara léegi da ngay tànk ca saafara sa nga toggee ko resu xar mi nga bind salaamun xawlan min rabbi rahimin nga def ci xolam rek nga lekk ko yow rek léegi nag saafara sa jëres nga sangoo ko loolu tamit euh, daan daan nañ ci fal nit euh, ba tey li ci ëpp doole nag nga xam ni moom mënee su ko jeexal ay njariñam ci plateau bi ñeent suratu yaasin mhm. waaye bu ci nekk daa am noo koy bindee suratu yaasin bu njëkk bi aaye boo bind dangay bind ba in yàkkaadu lesina kafaro aaye boo bind nga bind ba in yàkkaadu lesina kaforo ba aaye aaye jeex suratu yaasin bi jeex nga teg ko ne doo ko teg nag ci suuf ci kaw nga koy teg bu laalee suuf day toj loolu mooy première sortu yaasin bi ñaareel bi sorti yaasin boo bind aaya boo bind nga teg ci alam nasara aaya boo bind nga teg ci alam nasara làkk sa dara boo saar yu jeex aaya boo bind nga def loolu ba yaasin boobu pare moom it nga tegaat ko fu kawe ñetteel bi aaya boo bind ci sortu yaasin nga bind nga nga bind ci zuyna li naasi bu saxawaati aaya boo bind nga teg ci généralisation bu sanwaati ba boobu egg tamit nga tegaat ko muy ñett ñeenteel bi ñeenteelu sortu yaasin bi aaya boo bind nga bind wala xaddi karam naa bani aadama aaya boo bind rek nga dugal ci walla xaddi karam naa bani aadama ba yaasin boobu jeex nga teg ko muy ñeent sortu yaasin su ko defee nga wut tàggum segal tàgg mi nag boo ko ajjee bu mu laal suuf segal am picc la mu nuy wax segal mm. waaw lii moom képp ku président sax boo ko bëggee boo ko defee yàlla dana la waaw ci kàttanu yàlla waaw boo bindee ñeenti sortu yaasin nii ma la ko waxee nga wut tàggum segal boo ko àjjee ci garab gi bu mu laal suuf mm. jël ko rek nga def loolu ci bari ko saafara si mm. nga daal xooj tàggum segal mi mm-hmm. bu defee nga wut parfum miski mm-hmm. parfum saxfaraan udrus maal wirdi muy parfum yi amul alcool su ko defee euh, nga daal di adat sa tur ak turu dëkk ba bu fekkee Sénégal nga bëgg a jël da ngay Sénégal li muy jàpp ak sa tur nga di ko sikkar wala xadd karam naa bani aadama lim boobu bu fekkee ab entreprise la da ngay adat euh, entreprise ba ak sa tur nga di ko sikkar wala xadd karam naa bani aadama waxaama naa mu fil bari wal bari wala sax naa min tayibaati loolu soo ko dee def te doon ko war a falu la nga xam ne bëgg nga koo falu incha allahu rabbi suñu borom ci boppam dana la fal ci nu mu gën a gaawee. li neex ci li nga wax mooy. Mhm. bu bu nit ñi di wut falu genre xërëm bu ne la ñuy def. mais mhm. fii on la. ba pare bu dee li ngay sangu la yow yaa koy sangu bu dee li lekk la yow yaa ngi def lekk ko mhm. au moins euh, c'est waaw loroo kenn ah, sëñ bi nee na sëñ sëñ Tuubaa na yow mi wër lu doy nga ñëw fekk alxuraan doyloo ko fekk nga lu doy nga doyloo ko fu mu ne alxuraan lépp ay ay ay code la ñu ñëw ci adat bi tënk ci donte sax mënu fee xaj ndax ci ilmu nijoom ak ilmu ramli dañoo xewoon duroo mais bokkuñu. am na ñuy xool ay mbir di ko adat ci turu ilmu nijoom muy xam-xamu biddiw. am ñoo xam ne dañuy xool mbir ci ilmu li léegi léeg nga gis euh, kajoor nit ku dem ci sëriñ ñaar ñu dem ci sëriñ ñoom ñaar ñu bokk aajo sëriñ bi jox kii lii jox kii lii mu doon même lu mu leen jox benn la kii dem gisi résultat. kii ñëw du gis résultat te lii leen kilifa gi jox benn la. lan moo mën gis ci résultat kii du ci gis résultat. moo mën a waral loolu. seen tabixa yi moo bokkul. seen tabixa ku nit ku nekk dafa am rawxaanam. ah léegi nag euh, tabixa yi ñeent la sawara ñenn ñi seen tabixa sawara la ñenn ñi seen tabixa suuf la ñenn ñi seen tabixa ngelaw la ñenn ñi seen tabixa ndox la ñu koy wax naari trois bi yu xawaa iyu maa iyu léegi dinaa ci leeral tuuti boroom naari yu nga xam ni mbiram sawara la moom boo ko joxee saafara bala koo sangoo sax daa war a tàngal da ko war a tàngal ba mu tàng mu bàyyi ba mu xaw a sedd mu sangoo ko bu fekkee lu mu war a sangoo la warta sangoo lu sedd ndax mbiram dafa bëgg sawara mm-hmm. wala mu diwoo ko naka noonu kooku ki nga xam ni rawaxaanam tabi am sawara lu bëgg lu ci bari ci ay mbiram da ko war di suuroo bu bëggee muy gaaw bu fekkee téere la boo xam ne da ko war a takk jar na sax mu def ko ci biteel tëj biteel bi tàngal ndox dugal ko ci biir biteel bi bàyyi ba mu ba mu tàng mu génnewaat biteel bi tijji ko doo ko takk téere bi léegi kooku borom naa naariyu bi mhm. nga xam ni rawaxaanam sawara la buy saraxe la gën ci la muy saraxe na doon lu jaar ci taal mhm. moo tax nit ki daa war a xam tabiam mhm. waaw moom buy saraxe bëgg mu am lu mu ko xëccal lu mu bëgg mm-hmm. na saraxe loo xamante ne jaar na ci lu mu togg lu mu togg ba pare la nga xam ne jaar na fa tàng mm-hmm. bu dee saraxe loolu ay mbiram day gaaw mm-hmm. ki nga xam ni nag euh, rawxaanam suuf la muy trois bi te mooy suuf lu bari ci ay mbiram manees na koo suul ci suuf moo tax mag ñi euh, kajoor dañ daan gis euh, ñu am saafara suul ko ñetti fan sulli ko doog koo sangoo loolu ay tetal la nit ki xaatim bu boo xam ne dafa def aajoot lu ñuy sangoo itam te mu war a ànd ak garab daa war a fexe ba am reenu garab gi ndax xam nga reenu garab gi suuf lay sax uh-huh. mu def ko ci saafara si doo koo sangoo wala mu diwoo ko bu fekkee téere la bu mu war a takk ki nga xam ne rawxaanam suuf la téere bi bu ñu koy ëw war na noo comb suuf def ci uh-huh. mu doog koo takk bu fekkee lu muy sikkar la tur yàlla bu muy sikkar uh-huh. bu ko sikkaree ba pare war na koo ëf ci suuf tifli ko ci suuf après mu tubbaat suuf si boole ko saafara sangoo ko mooy tax mu gën a gaaw euh, boroom xawaa te mooy ngelaw ki nga xam ne rawxaanam ngelaw la lu bari ci ay mbiram mënees na koo takk fu ngelaw di jaar bu bëggee mu gaaw ki nga xam ne rawxaanam ngelaw la ay mbiram lu ci bari mën na koo takk téere téere dënn mu mel ne maxtu nga xam ni ngelaw li da koy gis bu dee sikarit la muy sikar bu paree da ko war a wal ci ngelaw li bu bëggee mu gaaw bu dee saafara tey sikar na sangoo itam te mu war a ànd ak garab tóortóoru garab wala xobam walla xobu garab léegi nag kooku bu amee lu mu war a saraxe la gën ci ay mbiram na saraxe fur wi wala mu saraxe picc njanaaw wala mu saraxe ay yéreem yu rafet loolu moo tax ay mbiram gaaw léegi benn bii moo ci des boroom maa iyu ci ci tënk rek. waa mhm. ça waaw iw te mooy ndox. kooku ay mbiram mënees na koo booleeg ndox sangoo wala naan wala diwoo lu ci mel ni xaatim bu mu war a def aajo. Mhm. mënees na koo suul ci fu ndox di jaar. Mhm. robinet suufu robinet wala teen wala fiwatu tefees. yu mel yu mel noonu daal. bu fekkee dafa am garab gu mu war a àndal naa doon garab guy sax ci ndox wala sayaan wala déeg. Euh, mu doog ko jël doog koo booleeg saafara ndax ay mbiram moo bëgg lool bu fekkee moom nag dafa war a saraxe hmm? la muy saraxe daa war a doon ceeb xam nga ceeb ci ndox lay sax wala mu saraxe jën wala mu saraxe xorom foofu la ñuy wàccee sunu kàddu